السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله سيدي بكر ne يكتي ngi yëkkati kàddu nag kàddu nag goo xam دي شيخ الحاج مالك سي ماودو اك شيخ الحاج محمد منصور مي توك اك سيرن بابكر مولاي عبد العزيز مي توك اك نيوم سين راك نيو كوكو سانت ني ناكو جوتال نيت ني ndax lu ñepp bok la tay nak di waxu kay su ne waxu kay nak waxtu wi yit di waxtu waxukaay bërëb bii di waxtu wa di waxukaay li ñu seq ñu waxtaane ko lu yàgg la nag nekk nag ci xelum ñépp ñépp bëgg ko di ko mébét di ko yéene di ko xalaat di ko metitlu Mudi, affaire juma Tiwaawan ji ne musule na tok ci ben mbolo ba deg ñu tuddu ko li yon nak bo bëggee def te bo musiw da ngay nek ba jekku soga wax yàlla dogal na nag jamono ji mu mel na nawet ci xolu nit ñi nag ñépp di ko waxtaane ci biir loolu itam am ay doom njaboot ay bokk yu baax volontaire ñoom ba ubbi ca bunt yaakaar dal di tabbi ñu soog koo mën a wax nag ñu fas yéene yëgal ñépp ni nag mi ngi wax ni ñépp ci lañ bokk nee dina dem nag ci ay détails nag ñépp ci lañu bokk muy nag lu ñuy sumb fas koo yéene taxawal mbok yoyé am xalaat yàlla jox len xewal jox len xame ñu ni ñoom daal lañu am ak ku ñu am danañ ci ànd ak yow def ci lañu mën ba yëf ya sotti waxtu wa jot na nag yëfu yàlla du tardé dafa am fu ko yàlla soxlaa léegi nag mu mel na jot na su ko defee nag ñépp yëg ko ne li ñu koy yëgale ñéppit nag dañoo bëgg ñépp def ci seen loxo kenn ku ci ne miraasal sa bopp def ko ci loolu lañu bëgg de kenn ku ne am ca tuyaaba ja nee buñ koy def nag bu mu tax benn nit jóg ni dañ koy yónni muy laaj santuñu président daayira du ilimaanu jàkka du borom daayira du borom dëkk du borom kër yónni wuñu kenn dégg leen lool nag yónni wuñu kenn de ku la ni man daal tànn nanu ma waxul dëgg ku ni déglu leen ku jógit ni man kat man la ñu yebal waxul dëgg yebaluñu kenn ku ñu yabal daa ngeen dégg turam ci seen nopp dégg nag goo xam ne gi du am benn werante waaye fii daal ñu toog nii fii ku bëgg loo gàmmoo ba tax nga commencé laaj ku la jox sànq naa lalam kenn laaj loowul kenn kenn yónniwul kenn dañ leen di rek informé ci xalaat bu jóg ñu war koo doxal daañu ñu xamle bu ñu ne nit ki moo war a laaj wala moom la ñu war a jox dinañ ko tudd danañu ko tudd bu kenn ñëw ci sëriñ bay nag naan ko man daal ñi ma xam am nañu yéene boole ma ci groupe bi ma laaj ne bu ko ci kenn la jël sëriñ ku la ko nee ko wóoluwuñ la nga noppalu nga noppalu mu noppalu bu ko wax leneen nag ne ko rek wóolu wuñ la rek mu daal di jeex ñi koy seq nag nañu leen tànn ñi xalaat xalaat bi nag bëggul woon sax ñu wax seen tur ndax ñoom li ñu wax dañu ni lu waay mën di ko ci def nanga ko dagg sa làmmiñ doo tudd yit langa nga cay def doo waxit nit man de def naa ca nangam noonu nag ñoom ñooñee noonu nii mu ko waxe mooy seen xalaat ñoom dañu noonu wéet rek defar ba mu sotti yàlla defit ne moom mii nag muy tudd seen tur dajaloo nanu waxtaan waxit ni bëgg nañu de bëgg nañu defit waaye gumba gan déedéet gan du yeewi bëy bu ñuy liggéey ci kër Cheikh Seydi dañu bëgg lañuy liggéey ndigal la jóge ca kër ga ñu désigné leen ba àddina yépp xam ni luñ cay def ñoom ak ñoom ñooñee ñoo ci d'accord ne sëñ baa ngi wax de ne amuñu daayira bu ñu affecté amuñu association amuñu benn kuréel boo xam ni lii wax nañu ko ak yow santuñu la dara it dara yéen ñépp ngeen déggandoo ko yéen taskatu xabaar yi nag wetu xabaar ngeen xabaara ngoog tudd leen tudd leen bii na dem na fanaani xabaara ngoog waay waay kuy wër di yuuxu ku ko jox lu mu wax mu war a ngeen na siiw léegi nag ñi nga xam ni ñoom ñoo ci ne mat nañu benn lim waaye ne moom daal Sidi Bakar ne def ciy teggi ay nit rek tudd leen ñu yóbbuwaale ñoom ña ca des ne ku mel naka alxaaji Maxtar Siise di doom moo ko désigné pour mu jiite teg ca it ku na Famara Silla Famara Ibrahima Silla ci ku mel na alxaaji daam jóob mansuur ñépp xam ko muy nag mag moo xam ni mi ngi fii ci Tiwaawan lu fi xew mu dee ca ni weñ di def ci soow rek walla sebet noon la alxaaji jóob mel ci ci alxaaji daam jóob ci Tiwaawan ne ku ñuy wax bookan njaayit maga ca xam ngeen ko moom jot naa feeñal boppam fii ku ñuy wax Cheikh Seck ñépp xam ko wala boog ñu bare xam ko ma ca am na nag ñeneen ñu des nee tudd leen nag ñoom ñépp waaye ñoom ñépp nag ñun ñii dinañu leen xami لقي الشيخ سيد حاج مالك دوما سبكو بما عطف فيه موي سامونت اك نام ورا دوخي موي علال لا ني سوخلا واي نا لاب دي نا سيل ييت نيغو يالا كير سيد حاج مالك علال جو سيل جو لاب موم لا ني سوخلا du alal ju ñëw rek dugg ci de ku xamuñu fu ma jële sama alal it juum nga waaye ñun ak yow ñoo bokk réew nag te cokkeer na déedéet cokkeer ak morom ma mënuñoo réerante de cokkeer daal ci taatu ngeen duñu réerante mukk waaye cokkeer kay rëbb la mën a réer waaye cokkeer ak cokkeer ci السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله